Euh, sotti la ndox bu bu tàng loolu kese la ñu def ils peuvent rien faire d'autre. te tàmm ngeen ko mais te du question tàmm sax c'est que xam nga léegi xam nga lan ngay sóor. Mm-hmm. booy yi sa ginnaaw ngay sóor. tu vois donc looloo tax. am na yoo xam ne mënoo ko def mais bu doon yow kese la. kenn waxatu ko. Mm-hmm. tu vois ce que je veux dire donc sénégalais il faut ñu comprendre que ne mm-hmm. ñun dañ am nañ suñuy liggéey am nañ ay business mën nañ nekk ci leneen mais suñu bàyyee lépp bàyyi njaboot ñëw wàcc fii nii pour taxaw pour au moins pacifiquement pour que Niti l'air les contrats gaziers, les contrats pétroliers. Mhm. Si on le fait, c'est pour les générations futures, c'est pour nos enfants. Absolument. Tu vois, tu as 6 000 milliards. 6 000 milliards, c'est 13 333 machines d'hémodialyse. 6 000 milliards, c'est 115 euh, ans de bourse pour les étudiants. Comment les gens s'imaginent ça quoi 115 ans de bourse pour les étudiants si 6 000 milliards waxuma 400 000 chaque sénégalais mais 6 000 milliards c'est 333 écoles dans chaque département écoles équipées dans chaque département mbay mi donc à un certain moment un peuple qui qui veut que les choses soient claires un peuple qui veut que les mi pour nous pour nous pour nous nit l'air. mais ana mais sénégalais nous dañu foog ne ñun lii daf ñu neex ngay nous dañu mais nous ñëw affronter les gens, nous avons de guerrier non non si on ne le fait pas qui va le faire Sabadola de euh, Sabadola bu ko gars négocier ñan ñoo est-ce qu'il y a est-ce que frappe est-ce que CRD est-ce y a mais tey 2019 loolu noonu yëpp am tey vous Dola, boobu di dem ci Ce du du sénégalais du kenn donc quand on a l'opportunité d'avoir du pétrole et du gaz nous devons gagner sénégalais yi ci ndóol mu les sénégalais yi ci nous yi nga ñu ngi di agresser di def si nous pour génn réew pour dem job nous créer une société à travers ces trucs là on est là pour ça et rien d'autre